nekk mbiru élection présidentielle. yàggul dara ki hmm. itam mooy Boubacar Fall bu nekk RFM. Hmm. génnoon na wax ci discours euh, du président de la République Macky hmm. mais daf ci am ay euh, mbir yu ko ci fekk. mu ay injures ay menaces. Euh, mm. c'est un problème. non c'est un problème parce que jamono ji ñuy wax ni euh, réew injustice yi boobu moo tax ñenn ñi dem prison donc yooyu yëpp dañ nga xam ne moom mooy nekk euh, Seydi Gassama lu ma wax sànq ñu daal di koy liiral askan ba mat sëkk moom Seydi Gassama di wax ne li nga xam ne moom mooy le but des recours c'est d'éliminer en instrumentalisant la justice les candidats des deux principales forces de l'opposition de de l'élection présidentielle mu mel ni Karim Wade ak ki nga xam ne Bass Diomaye la daal di wax mu ne cette perspective porterait un coup sérieux lieu à la crédibilité du processus électoral et à la légitimité du futur euh, président de la république maanaam mun na njeexital par rapport ak fiabilité li ñeel euh, wàllu scrutin bi ak li nga xam ne moom mooy légitimité ak li nga xam ne mooy notoriété euh, candidat bi nga xam ne moom moo nar a jiite président fi nga xam ne mooy si Sénégal au soir du 24 février donc mu ne également li nga xam ne mooy après un processus de parrainage unique et à la fiabilité douteuse qui a permis d'éliminer de sérieux candidats à l'élection présidentielle maanaam si wàllu euh, euh, processus électoral bi wàllu vérification des parrainages comme ñoom Bougane Gueye ni muy wax Mimi Touré Abdourahmane Diouf ak collectif 41 44 euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy candidats yi nga xam ne dañu daal di recalé moom muy fàttali lu ni mel yoo xam ne ne dont trois anciens premiers ministres yi nga xam ne également ñoom dañu daal daal di recalé donc également wax le régime introduit ci wàllu premier ministre nag mun nañ jàpp ku mel ni Abdou Mbaye waaw euh, Abdou Mbaye Abdou Touré mhm. ah, ak ak ban <laughs> da ci gën ñëw <laughs> ak également ki ne mooy Serigne Gassama di ñëw euh, di di di di di di waxaat naan il ne peut y avoir une élection libre démocratique et transparente si la justice et l'administration sont instrumentalisées pour éliminer des kanda mhm. mu ne le présidents mu ñëw def fàttaliku naan les président Abdou Diouf et Abdoulaye Wade euh, n'ont jamais utilisé les institutions de l'État pour éliminer leurs adversaires. Leurs maanaam euh, Seydi Gassama mooy def ab fàttaliku par rapport ak Abdou Diouf ak ki nga xam ne moom mooy euh, euh, Abdoulaye Wade di fàttali ki nga xam ne mooy le président de la République naan ko ñoom seen jamono ñëw ñoon pour daal di li nga xam ne moom mooy benn adversaire politique muy continuer ay kàddoom di wax ne il les amnistiait lorsqu'ils étaient condamnés pour leur permettre de participer à la compétition électorale de les battre ou d'être battus Seydou Gassama loolu nag xaw na euh, mu ne il les amnistiait lorsqu'elles étaient condamnées pour leur permettre de participer à la compétition électorale de les battre ou d'être battus muy continuer kanam moom Seydou Gassama di xam ne ne qui mieux qu'un transhumant pour accomplir les sales besognes en politique une manière de lui faire ravaler comme des vomissures ses propos passés moom Seydi Gassama mooy wax li nu mel di duut baaraamu tuuma li nga xam ne moom mooy par rapport ak processus régime bi fi nekk par rapport ak processus électoral bi par rapport si yenn candidature ñu jàpp euh, euh, si yoon di fàttali également li nga xam ne moom mooy euh, les président Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade di si ñëw si li nga xam ne moom moo ñeeloon seen i reñ ginnaaw bañ deful benn jéemuñu rakale benn candidat muy fàttali président de la république war na roy si ñooñu waaw surtout loolu euh, ndax gis nañ Sénégal am na coppite yu bëri bëri euh, nee nañ obnubilé euh, pax li nga xamante ni moom moo di politique mhm. obnubilé par pouvoir mhm. bëgg a jël nguur tax na mhm. tey dañuy gis ay comportement yoo xamante ni mataar duñ ci sori en tant que journaliste dañuy rek daal di yem ci li nga xamante ni moom moo di tataan li nga xam ne moom moo di xibaar fii devant le conseil constitutionnel. Mm. daanaka dix heures et demi jot na. Mm. boobaak léegi Badio Camara génnagul gisaguñu affiche. Mm. gisaguñu mail gisaguñu dara. nga jëm ci li nga xamante ne moom mooy publication liste officielle. Euh, candidat ya war a dem ca joŋante présidentielle le vingt cinq février. deux mille vingt quatre. donc dégg ngeen lu ñu wax sànq waaw moom moom la Serigne Gassama si wax. élection yi transparente ba pare. inclusive maanaam képp ku war a mën a bokk daal di bokk ci élection yu ni mel ñu bañ a éliminer bépp benn candidat loolu mooy kàddu Seydou Gassama bi nga xam ne moom moo def li ni mel mu nekk panafricain nekk également euh, njiital Amnesty International bu bu Sénégal yoon la mu nekk société civile bi daal di indi ay leeral par rapport ak li ni mel. ñu ngi koy également ci li nga xam ne moom mooy. ginnaaw ndaje bi nga xam ne waa droit de l'homme Sénégal ñu war ko daal di càmbar fële si ñi ngi xaarandi ñu daal si wax yenn cas ni mel euh, ku mel ni euh, ñoom euh, Pape Laye Touré wala yenn journalistes yi mel ni Mati ñaa ñi ngi xaar ñeneen ñeneen ñi nga xam ne les femmes qui sont également en prison donc ñu daal di wax ci lu mel di wax également moom Seydi Gassama di fàttali li nga xam ne mooy coowal parrainage bi di wax ne fiabilité bi mën nañ si daal di ginnaaw ba ñu jàppee ñoom dañuy éliminer ay candidats yu pour ñu war a jàll ci élection présidentielle ak fàttali trois euh, anciens premiers ministres yi nga xam ne tamit ñoom dañu daal rëk rëkkale Aminata Touré euh, Abdoul Mbaye ak ñu ni mel donc yooyu yëpp euh, par rapport ak la liberté du pays wala la liberté des citoyens wala la démocratie et la transparence ci justice ak administration bi nga xam ne également ñu ngi leen ko dut baaraam tuuma ci ay fan yu néew la par rapport ak li nga xam ne moom mooy moom mooy réew fële ca coalition benn Bokk Yaakaar dénkoon nañ ko ay ndombal tànk yu bëri bëri mhm. euh, la mu ngi koy xam ne rek ni ki keroog ne tey kenn mënu ko jàngal yi nga xamante ni mhm. moom mooy processus euh, des parrainages mhm. ndax moom nee na da dem demati ci en tant que jigéen euh, le président de la République Macky doon na ko dénk mbir mi muy dem fépp ci Sénégal ngir rek wut ay parrainage donc tey buñ nee na bett na ko lool mu ñëw devant conseil constitutionnel ñu koy wax ka ne parrainage am yoon wala am na ay liggéey ndax moom amul problème euh, lu jëm ci parrainage de même que Aïda Mbodj itam kaawam noonu la demee. Mhm. Euh, Matar kon mi ngi noonu rek li la wax ci politique politique moom. Euh, tey mën nga far fii suba nga far fale hmm. coppite ku day am donc nañu bàyyi xel bu baax a baax a baax ci ñuy suñuy waxu tey ndax vaar yi tam mi fi hmm. da ngay gis tey politicien bu ànd ak mataar wax la ko saf hmm. <laughs> ëllëg mu jógee fi dem fee euh, di xaram nit ki donc nañu bàyyi xel toujours comme li may wax toujours rek intérêt Sénégal euh, intérêt askan wi ñu gën a concentré sur les préoccupations centrales que ñuy focaliser wu ci ay détails yoo xamante ni vraiment jëmale wu réew fenn ngi siyaar également Modou Ngom moom mi ñuy delloo moom mi ñuy nuyu Sewru Sall ma moom miy laaj ba xam bi dina génn tey ah, suñu respecté li nga xam moom mooy le calendrier électoral le janvier lañ war a publier liste officielle li nga xam moom moo ñeel wàll candidature ah, mais mu génne woon dafa mooy nekkoon candidat waaye laata loolu nag amoon ab recours recours boobu noonu euh, moom moo ñeel lu ni mel li ni si wàllu koy jàll ak dul jàll peut mu am ay coppite ginnaaw euh, le premier ministre Amadou Ba duggee recours si wàllu candidature Diomaye ak Cheikh Tidiane Dièye euh, Thierno Alassane Sall dugal recours si lu ñeel Karim Wade ak Ousmane Sonko par rapport ak son avocat euh, ak lu ni mel donc ak Fatou Seck mi nga xam ne dugal na balaa midi mbir war na mun a leer ngeen daal koy am en direct si nga xam ne mooy Sénégal 7 euh, ak ak ñu ni mel di nuyu bu baax a baax ñi nga xam ne moom mooy Cheikh Serigne Abdou Lahad Jaxate euh, moom ñu ngi koy ñu ngi koy nuyu euh, Fall Mouhamed également ñu ngi koy ñu ngi koy bàyyi xel euh, ki nga xam ne moom mooy Mamadou Niang tamit ñu ngi koy ñu ngi koy bàyyi xel ak sama doomu baay Abdou Abdou Cissé Isbu. mais Matar nemeeku nañ ni aussi changement. Mhm. ndax bërëb bi daan daan na gën am plus de force de l'ordre mhm. gis nañ itam genre événement yi bu daan am dañ daan interdire circulation moto yi. Mhm. cette fois ci gisuñu benn communiqué buy wane que ne moto yi waruñu circuler. te avant dañ nit ñi dañu ne am problème mu circulation mën a dox seen ay soxla. Mm-hmm. gaare seen moto yi cette fois si nag loolu gisuñu ko. Mm-hmm. aussi ñu benn euh, présence su euh, candidat wala mandataire am. Mm-hmm. Euh, devant conseil constitutionnel ñu ngi gis benn vide. ak quelques force de l'ordre yi nga xam te ne ñoom ñoo fi taxaw. changement boobu tamit jot nañu analyser ko pour xam exactement ndax Sénégal dañoo am esprit de dépassement léegi wala on est toujours. Sénégalais bëggu bëgguñu xeex asu waxee dëgg rek Sénégalais yi ñoom pare nañ sax. doo dégg kenn nga naan da ngay dégg ñaan ñi ngi manifester fee ñi ngi manifester non non di nga dégg nag ay yuuxoo fenn parce que président la république lu xew Saint-Louis waaye jàpp ne jamono ji ñoom bëgg nañ li nga xam ne mooy tension te dégg nga sax ñoom ñu bëri ñu koy wax naan euh, ñun lu ñu bëgg mooy jàmm élection yi dem ci jàmm ki ko war a jël daal di koy jël jaaree la ko ci yoon ñoom daal yoon bi moo moo leen tax a jóg parce que tey dama ko sàng la justice sociale dafa am justice des textes loi yooyu yëpp am na waaye justice sociale mooy kaddu askan bi nga xam ne si mbedd bi lay tukkee maanaam moo moo ñuy nemmeeku des fois ngay gis yenn ñi nga xam ne moom mooy comme phénomène bi am rek les sonko sonkorisation donc yooyu yëpp da da am lu muy firndeel da am lu muy firndeel nekkul li nga xam ne moom c'est du hasard parce que peut-être am na kenn koo xam ne bàyyi na ko fi am na lu ni mel donc yooyu yëpp ay njeexital la par rapport décision bi nga xam ne ñoom war nañ ko jël ñu jàpp ne war na doon une décision sage comme ni ñu leen di woowee les sept sages euh, ñu bàyyi xel bu baax a baax a baax euh, li nga xam ne moom mooy askanu euh, Sénégal donc yooyu yëpp day am solo ñu ñu ñu ñu ñu daal di xam lan mooy taarixu réew mi ak Sénégal ci moom fu mu jëm parce que yaa ngi ko sànq wàllu pétrole bi Sénégal war nañ gis seen bopp asu surtout loolu surtout loolu ndax lu ñu yàgg xaar la xam nga euh, maa ngi wax sànq nag ki amoon nañ ki nga xamante ni euh, moom moo di Alpha Alpha Thiam borom 500 mm-hmm. francs mm-hmm. euh, que ne lépp war na mën a jar téeméer tamit je pense que bu ñu exploité li nga xamante ni moom mooy pétrole bi comme ni mu waree mu bañ a am benn luubal bu ci dugg mm-hmm. tey Sénégal war nañ mën jëm ci loole nga xamante ni lépp day wàññeeku gis nañ génne woon nañ fi décret wax li nga xamante ni moom mooy diminution li jëm ci mbirum location yi mais mataar boobaak léegi askan wi gisaguñ ci seen bopp dafa mel ni borom kër yi sax dañ doon xaar ñu teg ak décret bi pour que ñu gën a mën a maintenir prix yi mhm. wala que ñu gën ko yokk mhm. ku nekk di demee comme na ma ko neexee certes ñoom ñooy tabaxal seen i kër ñooy def li ñu xam ne mais des mhm. euh, jot na ñu bàyyi ñëpp jaayandoo même pour que ñu mën a euh, gëstu sénégalais yi parce que aussi les temps sont un peu durs maanaam euh, tey concurrence déloyale bi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku si wàllu secteur yéen secteurs yi rawatina wàllu commerce bi Euh, côté agence immobilier gisoon nga xam ne mooy luwaay yi nga xam ne wàññi woon nañ ko mais est-ce nañ ko boulangerie yooyu yëpp juróom ñàkk booloo ñàkk booloo ak syndicat yi syndicalistes yi également am nañ si liggéey mhm. parce que parce que syndicalistes yi tamit pour fàttali mhm. ñoom ñeneen ay syndicat euh, xeex li nga xam ne moom mooy euh, seen entreprise wala liggéey bricole bu ñu nekk mhm. pour teg jaar yoonal li nga mooy mbiru ouvrier yu ni mel waaye dañuy ñemeeku ñoom ñenn ñi dañuy daal def def politique pour fàttali li nga xam ne moom mooy seen mission syndicaliste bokkul ak li nga xam ne moom mooy politique te jàpp nañ ne ñoom am nañ également wàllu si li ñu mel euh, tamit ñu ngi wax par rapport ak les contrats de pêche yi nga xam ne jàpp nañ ne les bateaux étrangers euh, ñu ngi ñëw di napp fii jën daal di manqué ñoom ñuy wax li ñu yabooy sax dafa dem ba daal di seer donc loolu yëpp war nañ see bàyyi xel ak li nga xam ne moom ñeel wàllu agriculture bi euh, pêche bi élevage parce que si ngay Sénégal mu ngi def ay ay ay ay ay innovation yu garaaw te Afrique war na si investir le Sénégal war na si investir Sénégal bi nga xam ne jàpp nañ ne am na son euh, première sa première satellite bi nga xam ne euh, jamono ji war nañ bàyyi xel euh, si li ni mel donc également yaa may jox benn xibaar si par rapport ak fële nga xam ne moom mooy. Euh, théâtre national Daniel Sorano. waaw le directeur euh, le directeur euh, moom dañ ko mettre au banc des accusés. kam mhm. bu jotee kenn ci employé yi ba nga xamante ni ba nga nekkoon ca New York. Mhm. doon fa daan dooleem yore fa famille oom ak léppam. Euh, nee na euh, dafa yàgg ci liggéey euh, ci mbirum culture. Mhm. jëmale ko fii ci Sénégal. Mhm. ginnaaw loolu nag le président de la République Macky à travers le ministre Aliou Sow. Mhm. daal di nemmeeku liggéeyam tabb ko mu nekk directeur ensemble lyrics. moom nee na ba mu ba mu bàyyee léppam nag ñëw Sénégal daal di rek laaj si li nga xam te moom mooy contrat pour mën a tàmbali liggéeyam. directeur bi daal di daka ne déet. na bàyyi mu jox fonction bi keneen mu daal di rek moom occupé mbirum conseil jëm ci de communication muy naqar lu ni mel nag daal woote woon benn point de presse pour xeex li ni mel que euh, Sénégal amul yoon ndax nee na euh, ginnaaw ba njiit ya waxee pour